voilà euh, ñoo ngi fii euh, jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy Youssouf Bodian nekk journaliste euh, sportif fii ci RFM Youssouf Bodian ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abou. nga nekk journaliste sportive ñoo gis racisme daal di nekk ci terrain bu baax a baax démb bi nga gisee chaîne bu mujj quatrième arbitre de Sébastien Coltescu daal di proférer des propos racistes à l'égard ki nga xamante ne mooy Webo nekk joueur camerounais naka nga jàngatee loolu. waaw je pense que choc lañ ñëpp ama ah, comme d'habitude nuñ koy amee euh, sauf que euh, bii quand même d'habitude Euh, su yi ni mel amee ñii dañuy laam-laamee euh, ndax am na wala amul euh, ñi nga xamante ne d'habitude ñoom la ñu wax ni ñoo wax kàddu yooyu Neymar dal na ko dañuy faral di weddi waaye bi yoon ci main courante bi la donc souvent day différent am nañ possibilité souvent dégg ñi ñi lu ñuy weccante échange bi am diggante entraîneur adjoint bu Başakşehir ak arbitre roumain boobule donc loo xamante ne lu ñaaw la ba di xeet moom fu mu munta am dañ koy ñaawlu rawatina ci sport bi nga xamante ni ay valeur euh, partage amitié fraternité lay véhiculer ñu ngi seet yu mel noonu moom day am lu bëri loo xamante ni daf ñuy métti ñu en tant que ñoo xamante ni bëgg nañu sport particulièrement football. voilà ñu gis chaîne yi muy répété chaque année ñu gis deux fois trois fois ndax euh, mun nañu wax naan euh, ces yi yu mel ni UEFA wala FIFA ne sont pas Euh, je pense que gars yi ñu ngi def euh, lu ñu mën am na ay campagnes yu bëri yoo xamante ni euh, def nañ ko même si souvent ci fédération yi ci réew yi gars ñi ñu nekk ci même niveau parce que gis nañu dernièrement le GRET. Euh, di président fédération bu France moom am na kàddu mu yëkkati yoon mel ni ku xaw a nii ni racisme dafa am ci football waaye ci ginnaaw si gis nañu ay joueurs yoo xamante ni def nañu fierte équipe bu France ku mel ni Evra ku mel ni Thuram euh, maître Augustin Senghor ci Sénégal ñëpp yëkkati kàddu ngir recadrer ko wax ni lu am la mënuñu ko dummooyu euh, jàpp ni ñii ñooy wax rek mais c'est réalité boo xamante ni am na parce que football ñi nekk ci bi société bi dem di football racine société bi ak bépp maal boo xamante ne am na société bi mun nañ ko fekk euh, ci ci football bi je pense que ñi ñuy jël nañu ay règles ak yooyu mais doyul parce que souvent sanction yi du métti du tar ni mu war a li mu war a tare euh, ba tax na souvent da gis ñoo xamante ne que ça soit supporters yi yenn joueurs yi quand même c' est très rare nag arbitre yi ñoo gis euh, situation bi c' est quand même un peu inédit waaye quand mu ngi fi je pense que il faut continuer c' est la boo xamante ne sans fin loin d' être gagné Euh, ñu daal di gis ci lool mooy ki nga xamante ni mooy Demba Ba nekk euh, international sénégalais mu daal def benn réaction ci saa si noo gisee loolu. waaw Demba Ba loolu nag bettuñu bettuñu ndax Demba baa yàgg na nekk koo xamante ni figure buy xeex lépp luy injustice rawatina lépp luy euh, racisme gis nañ 2018 bu mu nekkee Shanghai ca Chine mu sonn am kon. problème ak benn joueur ci terrain parce que nee da ko traité euh, raciste mu marqué ko vraiment de manière fort ba ñëpp xam ni euh, lu lu war a am bu nekkee West Ham euh, temps yi mu nekkee Angleterre lu li mel daloon na ko mais chaque fois day marqué coup bi daal di wane ni quand lii nga xamante ni moom moo am. ñii ñi dañu leen war a dañoo tolloo donc soo nekkee weex wala ñuul euh, ñëpp benn la ñu waaw donc moo tax démb quand même dafa il était un peu la figure de la contestation ba adduna bi yëpp rafetlu ko ràññee ko ci quand même euh, pense que c'est courageux parce que bëriwul ay jours yoo xamante ne souvent dañuy euh, ñeme afficher soutien yi ni mel parce que dañuy ragal souvent représailles club yi ci ginnaaw donc mais moom quand même Demba Ba surtout sa carrière ah on a vu ci cause bi ak tamit gis nañu souvent xamante ni xew na Birmingham wala Uyghur yi nekk Chine Euh, publiquement day nekk di défendre wala suñu fekkee dañuy noot ay islam ay France day jël ay positions yu courageuses yoo xamante ne day wax li mu xalaat wax li nga xamante ne moom la yaakaar ni moom moo am je pense que fierté la pour ñun Sénégalais tey ku euh, loo xam parce que euh, nit la défendre pas noir on est victime de ça ay brésiliens yi aussi du yaay noir moom Neymar mais ils sont victimes de ça aussi mais boo di konte daal en général je pense que lu bon la te Demba Ba nekk doomu Sénégal su amee position bi ni mel bu parce que boobu moo demandé à euh, ce que coéquipier mi jóge ci terrain bi ñu gis ku mel ni Mbappé Mbappé nekk figure quand ci équipe de France topp ko Neymar topp ko euh, en solidarité ñoom Kimpembe yëpp ci réseaux sociaux yi ñu topp ko donc moom moo enclenché dynamique bi gaa ñi xam ni vraiment c' est un coup à jouer euh, pour man démb football moo gagné moo gagné parce que quand même c' gros coup parce que après il y avait des pour que gars yi ñëwaat mais ils se sont dit arbitre mooy ñëwaat ñoom li ñu joué waa PSG jàppale leen si ba tax na kon démb li nga xamante ne coup bi def nañ ko euh, coup bi daa ñu mu marqué coup bi daa di am euh, loo xamante ni retentissement mondial ba jox leçon ñëpp ñi nga xamante ni ils sont tentés peut-être affaire racisme ci ci terrain yi bëgg ko def suba. ñu gis euh, benn réaction bu Samuel Eto'o bu yàgg c'est pas nekkul ci cas bi mais wax na ci nee na la seule réaction bi xamante ni euh, homme de couleur yi maanaam personne de couleur yi war nañ ko mën a am si biir mooy lu ñu def démb maanaam bu lii amee rek ñu abandonné est-ce que loolu te partage effectivement effectivement je pense que hier ils l'ont fait dara fekku leen ci parce que ragal bi mooy souvent soo abandonné jeu bi euh, gaa ñi dañuy yaakaar ne peut-être ay sanctions mun na nekk ci ginnaaw mais dañ ko def ba pare gis na UEFA carton jaune bi nga xamante ne joxoon nañ ko euh, entraîneur adjoint bu euh, Istanbul Başakşehir Webo Euh, dañ ko dindi parce que dañoo yaakaaroon début protestation bi moo taxoon ñu jox ko carton li ñu ko wax moo grave ba tax na mu réagiré noonu dañ ko ne euh, ñu ñu dindi ko donc su fekkee ne am na tey protection boobu euh, UEFA wala FIFA wala CAF may nañ ko joueurs yi ñu mën a marqué coup bi donc je pense que ñi nga xamante dañuy ñëw ci stade yi rawatina supporters yi parce que li arbitre bi tey la mais li gën a bëri supporters yi la su amul spectacle ci stade amul ay joueurs yi football supporters du fa dugg. donc su fekkee ne supporter ñoo nga foofu ngay xëcc ñaar ñetti joueurs yoo xamante ne parce que dañoo ñuul nga leen bëgg a toroxal bàyyi ñeneen ñi euh, match bi di continuer am nga ñooñu euh, ça va continuer mais su fekkee ne ñoom spectacle boobu taxaw ñu ñëw ci stade bi gis nañ ni am na comportement boo xam ne suñ ko defee spectacle bi mun na bañ a am comme dëmbali am. Euh, c'est c'est heureusement que y avait pas de public mais su ñuy fayoon imaginer seen ticket ba pare ñu joué bi dagg nga war a ñibbiwaat ak coono bi ñu ci daj xam nga ñooñu ci bàyyi seen xel suba. donc ce qui fait que euh, solidarité bi su amee euh, kenn mu am nekk victime de ça ñëpp boycotté football bañu amati gaa ñi nañ comprendre utilité peut-être ñëw tolloole ñëpp bàyyi comportement yi ni mel pour que football bi bi nga xamante ne ñu moom la ñuy wax ni moom lañu bëgg mën a continuer euh, mën a bëggal ñëpp. question bu mujj euh, ndax campagne de sensibilisation yi parfois dañuy gis les grands joueurs comme Cristiano Ronaldo def si sensibiliser ndax loolu doy na est-ce que waruñu xoolaat. texte yi ci boppam lu yi ci imposé ay loi xamante ne day sanctionné ñëpp. effectivement sensibilisation bi moom euh, yàgg nañ ko def gis nañu souvent match yi suñu commencé ñu yëkkati ay banderole notre racisme joueurs yëpp yor ko ak yooyu mais mais doyul mais je pense que lii dëmba Demba euh, Ba li mu def ba équipe bi tamit topp ko ci li mu li mu wone mooy euh, sanction yi dafa war a gën a tar parce que gis nañ ni même waa Roumanie sax dañoo désolidariser wu ci seen waa ji ministre des sports bi génne na communiqué pour ñaawlu li nga xamante ne waa ji def na ko donc ce qui fait que a derrière képp koo xamante ni def nga ko ñu génne la ci football ba mu ba mu set wecc su fekkee ne supporter nga dootoo amati droit dugg ci benn stade ñu ñu aaye la ko su fekkee ne joueur la ay sanctions yoo xamante ne di nga sanction pécuniaire te tamit da ngay toog lu yàgg doo jouer nga xam ne sa taranga ci la nekk ñu daggal la say li ngay fayee ku koy def rek di nga am loo xamante ne di nga ko di nga xalaat ñaari yoon balaa nga koy def je pense que campagne sensibilisation yi baax na mais man je prône pour des sanctions yoo xamante ne yu exemplaires yooyu doon et sanctions yoo xamante ne képp koo xamante ni euh, teg na leen ko ñeneen suñ ko gisee suñ ko bëggee def nañ xalaat ñaari yoon balaa ñu koy def. di la jaajëfal bu baax monsieur Diop. di la jaajëfal Abo di jaajëfal bu baax a baax euh, téléspectateurs yu Leral TV. merci